Seneinfo International. Seneinfo International bonjour dalee nag jàmm ci li gën a fes euh, ci xibaar yi jeudi 23 novembre 2023. dañ koy njëkkee rek ak euh, le soleil le soleil bi nga xamante ne mu ngi xamle euh, par rapport ak tournée économique bi nga xamante ne Macky defoon na ko dans les régions de Kédougou Fatick Kaolack et Kaffrine temps yee passé tournée économique bi boobu mais Macky Sall nee na dafa bëgg ñu exiger ñu satisfaire les exigences des populations moo tax mu ne as moo tax mu le président exige une mise en œuvre sans délai mooy euh, milliards yooyu nga xamante ne liggéey woon nañ ko euh, Macky Sall nee na dafa ñu def euh, la mise en œuvre de voilà de toutes ces promesses là qui ont été vraiment éma voilà qui ont vraiment prises hein, dans ces de toutes ces promesses là qui ont été tenues dans dans cette tournée économique de Macky Sall ñu ñëw encore si journal bi la ñu des le budget hausse de cent trente milliards de francais CFA. Euh, donc li budget boobu mooy budget euh, éducation ah ministère de l' éducation bi nga xam ne moo doon jàkkaarloo dem ak député yi euh, bi yokk nañ ko ba cent trente milliards de francs CFA. le journal enquête le journal enquête moom ñuy xamal à sa une les confessions amères de Macky waa waaw lañ koy tuddee parce que moom Macky Sall mu ngi def ay confession taayee yëpp mu ngi def ay confession di di di di di wax lu ko naqari si ay collaborateurs am donc si lance boobu la journal bi xëy tey. moom Macky Sall nee na la politique rime trop rime trop souvent avec trahison euh, donc euh, loolu la Macky Sall xam leen demaat aussi si Ousmane Sonko ne je ne regrette rien moom nee na rëccuwul dara si li xamante ne moom moo euh, la Ousmane Sonko nekkee wala moom moo daal Ousmane Sonko journal bi rek ñuy wax un peu euh, ci éducation bi ah moom moo euh, le manque de de de de l'enseignant de table banc de daara donc loolu yëpp nekk na li nga xam ne député yi soulevé nañ ko démb ba bu ñu jàkkaarloo ak ministre de l'éducation euh, nationale. Walf Quotidien moom ñëwaat na. Euh, si cumul de fonction ARTP ASAD nee na ARTP silence on viole la loi donc euh, fi nga xamante ne moom mooy ARTP agence de régulation des marché publics donc euh, yenn cas bi mu ngi xamle ne foofu dafa am ay cumul de fonction yu fa xew donc journal bi xëy ni ñu ko fësal donc ñëwaat encore ci candidature Habib Sy nee na Habib Sy Habib Sy candidat à l'élection présidentielle moi président de la République Macky ne voulait pas en finir avec le pouvoir nee na moom bëggul woon jeexal ci pouvoir bi loolu la Habib Sy xamle. ñu des ba tey rek ci journal bi ah donc Amadou Amadou Ba dans sa collecte de de de parrainage récolte na 3 millions de parrains loolu la Amadou Ba xamle euh, ci journal euh, Walf. quotidien moom ñëwaat na rek ci budget euh, ministère éducation nationale nee na l'argent ne fait pas le bonheur waa budget bi voté nañ ko certes. yokk nañ ko ba cent trente milliards de francs CFA mais journal bi mu ngi xëy xam ne ne l'argent ne fait pas le parce que secteur éducatif bi mu ngi rencontré ay difficultés comme nañ ko leen ko waxee léegi euh, mooy manque de table-banc ak yeneen donc le gros budget consacré aux dépenses du personnel déficit d'enseignants de table-banc loolu la journal bi xëy encore fësal ñu ñëw rek encore ci journal bi mooy le saccage de l'UCAD université Cheikh Anta Diop euh, am ak yàqu-yàqu yu fa am ak dégâts yu fa am yépp nee na war a faj wala ni ko mën a wala a réparer donc 10 milliards de francs CFA la journal bi euh, xëy xamle ko mooy 10 milliards de francs CFA pour réparer les les dégâts UCAD ah donc euh, ñu des rek ci ci journal bi ba tey ñu ne le transport urbain 90 euh, nouveaux bus pour Dakar Dem Dikk donc société bi mu nga xam ne moom mooy société nationale Dakar Dem Dikk recevoir na 90 nouveaux bus ah pour mu mu gën a mën a faciliter le transport interurbain au Sénégal. direct news moom defal ñëw ci émigration clandestine bi nga xamante ne moom moo occupé actualité bi ah, euh, national donc nee na crime et suicide collectif l'émigration clandestine des centaines de jeunes ont péri donc loolu la journal bi fàttali rek émigration clandestine bi waa nekk na lu soxal askan wi euh, ak fa waay mënta nekk wala soxal na leen donc ñu ne journal bi ñëw ne arrêter ces de migrants qui dépouillent le pays de ses bras valides comme autant de la colonisation loolu la économiste bi nga xamante ne moom mooy euh, Meissa Babou loolu la xamle parce que def na euh, gëstu bu yaatu a yaatu ah def na gëstu bu yaatu a yaatu si euh, immigration clandestine bi donc la xëy xamle y a-t-il une volonté politique réelle de l'État à anéantir le phénomène donc lan la état war a def est-ce am na volonté politique pour vraiment mun a dàqal phénomène boobu nga xamante ne moom mooy immigration clandestine journal bi rek ñëw oustaz Oumar Sall nee nañ les Tidianes retirent leur plainte contre oustaz Oumar Sall Vox Populi Populi donc nee na Ousmane euh, Sall bi loin de l'article de la mort donc euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay jëgg naa dégg seeti nañ ko ki nga xam ne moom moo Guy Marius Sagna dem na seeti ko waaye moom nee na Ousmane Sonko mu ngi si jàmm mosul gis Ousmane Sonko mu nekkee en de bon état non très bon état donc Ousmane Sonko mu ngi nekk si jàmm bu baax a baax donc si si si prison donc euh, ñu ñëw rek si parrainage bi ki nga xamante ne moom mooy euh, Amadou Ba donc donc nee na Matam remet 181 euh, virgule 181 millions 867 parrain pour Amadou Ba. lu jeexalee rek c'est les cas de violence yi nga xamante ne sexuelle ah dénombré entre euh, juillet et septembre donc journal bi ñëw di si xamle euh, donc ñu ne daal il y a 30 cas de violence ah sexuelle dénombrés entre et septembre si euh, voilà si si xale yu jigéen yi si jigéen yi donc li lañ leen indiloon bu si lu gën a fes si xibaar yi ah le jeudi 20. 3 novembre 2023 euh, ci seen info international ñu leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi de leen ñaanal ñu yendu ci jàmm merci. seen info international.